Thank you. Thank you. trung tướng trung công an đảo chia sẻ cũng như chúng ta đều lại đồng bào đi như dân về nhiều xứ cũng như anh phòng chúng ta có các phòng vào với các chiến sĩ pas manquer cette opportunité pour rendre cet hommage à cette propre de l'islam. Cette position nous renvoie Gracias.

xam nañ ne bu ñu baax ci PIB dëkk bi. ak bu ñu waxee rek dafa nekk suñu développement réew mi eh, sama nuyoo maa ngi koy tàmbalee ci suñu xalifa Seydina maam Mamadou Makhtar Laye di gërëm kilifa yi suñu di jiital ci nuyoo bi madame la maire Nafissatou eh, Samb te eh, suñu kilifa bi connected saa yooyu nga ne ma ngi lay yow yaakaar naa ne boobu tegoon nga ci biir secteur bi ah nekk nga nit koo xam ne que vraiment li ngay représenté secteur bi kon tout le temps dama koy wax kon Moussa ñu ngi lay nuyu bu baax. ndax du nuyu le secrétaire général ak Mor Sow lu ko moom tam xabaar xale bu baax macha allah nekk euh, ak ku jox ñëpp seen wàccukaay seen liggéey mag bu ne jox la ko tey macha allah bon euh, ñu ngi leen di président Mor. léegi nag sama doom ci ginnaaw muy Fallou Ndiaye man Fallou maa ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccukaay ndax euh, léegi ma fekk ci ma toog te mu ne ma li nga xamee ne moo xew bu gannaaw suba te fii ak nuyu bi pistil te jox na la billet bu cent mille franc ndax kër boo xam nag secteur de l'artisanat jox na ma ko te euh, président Babou maa ngi lay bu baax Moussa Babou ñu nuyu te sama maa ngi ñaan ko jox wàccukaay nga bu El Hadj Omar Mbaye macha allah te sañ bi ah nit ku baax moom tam maa ngi nuyu bu baax di ko jox wàccukaay di nuyu sama frère Lamine Gueye di ko ziar bu baax a baax a baax di ño nag ci jigéen ñi nga xam ne nag ak ñoom laa nekk ay jigéen yu jàmbaar ay jigéen ñoo xam ne tey foire dañ koy wër ñu tuddee seen bopp ay foires loolu am ni ñu ko def ci foire. boo jigéen ñooñu dañu war di leen gërëm di leen sant ndax secteur de l'artisanat mënunoo dem sans les femmes wante ki nga xam ne moo nekk suñu grand mooy suñu secrétaire général ba xam na ko ndax euh, tey muy le secrétaire général de la chambre de métier ndax man tey bi ñun moom bu waxee rek man ak Diouf Sarr te def noo ëmb ak Fallou parce que nous sommes des élus de la chambre de métier de leen damay jox sama wàll boobu ma sëkk ba génnee les femmes si biir tal nag yaa xam ne mooy seen bu kay ndax macha allah macha allah macha allah dafa nekk koo xam ne dafa ba si dem la jógee ak Paar wax Grando mu ëllëg ko ñoom macha allah ñu ngi koy ñu ngi ak sama doom si ginnaaw xam ne Kayta di ko wax madame Kayta mi lay mën a wax ñu nuyu sama rakk sama vice présidente jam mooy euh, Assa Sarr di nuyu Koumba Dieng moom tam maa ngi bu baax a baax a baax mais nag que di nuyu ñi ci nga xam ne que moom mooy ak njaaya ak njaaya Waccabe moom tam di nekk benn femme que modèle moom tam secteur de l'artisanat di nuyu femme yi fi nekk nag di nuyu sama ak sama rakk ziar di la a jàmm te la ñaanal lii nga def mu nekk première émission bu ak ñu ngi leen di ñaanal yàlla may leen si ndaw ñu suñu seen doom di leen souhaiter bonne chance léegi nag merci beaucoup. merci beaucoup madame le maire. salaamaaleykum. laay wax daal maa ngi nuyu ñëpp vraiment rek pour que xalifa bi am lu mag daal yàlla na ko yàlla yàggal koy ziar bu baax ah di ziar ak lu bay di rasul bi nekk kàmpe yëpp bàyyi ñu kenn ci jiital Seydina Laay bi nga xamante ni moo fi kilifa à part bu maxtaan si kàmpe ñu ko ñu di ko ziar Alassane ñu ngi ñëpp ak ñu sama sëriñ ak ko ma boole ko ci Cheikh Abdou Salaay mu sama mag sama xarit sama sëriñ ma koy ñu di ko ziar Alassane ñu ngi nag ñëpp bàyyi ma kenn ah di nuyu chef village Cambérène ah di nuyu tamit euh, monsieur le maire ñun Pathé Mbaye Diop di koy nuyu di ko ziar di nuyu tamit euh, madame la maire euh, mi nga xamante ni moo nekk sama ginnaaw mu représenté ko ci tey muy adjoint muy madame Namy Samb muy sama sœur maa ngi oldu. Eh, yang gitu. mereka itu berpura yang mereka itu harus sampai di akhir

et euh, l'ensemble de la Chambre, le de la Chambre de métier de Dakar. Il y aussi Madame qui est de la et je de la Fédération des artisans du Sénégal. Et nous sommes là. và chúng tôi đến với người